yow yow sa solution bi c'est adapté ban pays moo nekk en crise actuellement euh, c'est adapté à un pays boo xam ne la démocratie est en ruine on cherche à à à à la reconstruire. dafa mel ni daal genre réew yooyu nu mu tudd comme Afrique du Sud bu ñuy doog a génn euh, ci apartheid bi euh, ay genre refondation yooyu nga naan le président sortant euh, lii il n'est il n'est il n'est pas président sortant du am pouvoir yi le premier ministre nii lañ koy mais sa affaire bi dafa jaxasoo ku ah. lire passage boobu mun na il est légitime que mu suspecté la de travailler euh, peut-être bon je dis pas et je dis pas que Macky Sall veut le report et mais peut-être de travailler. Wow. pour pour quelqu'un bon. qui voudrait le le le le rapport. Euh, j'en viens ak euh, ci ci loolu ma yeggali ci avantage. non non balaa nga ñëw ci avantage. non mais xam na loolu lan laa ciy tontu. waaw nit ku la suspecté. non non non mais mais idée boobu. mais non l'idée bi lii la laa man pour man sa peinture situation Sénégal ah ak sama peinture situation Sénégal bokkul pour man Sénégal est assis sur des braises. c'est pas une démocratie en ruine. ma ne la xam nga mooyu foro yi man duma ko utiliser. et là vous donnez les solutions pour une est, démocratie en ruine. pour man on est dans un pays boo xam ne bii les risque qu'on a fi ñu jëm nii bu ñu ko juguler wul ah waxuma la pays en ruine mais li ñuy xaar xamuñu ko te li ma la expliqué yëpp yaa ma ko gën a xam. ñu nekk ci benn contexte international boo xam ne géopolitique Sénégal est entouré par un cercle de feu ñoo xam ne il son hostiles au pays à cause de nos positions les positions qu'on a eues sur certains coups d'état gis nga effet bi mu am ñu nekk ci dëkk boo xam ne bii dañu am tous les avantages pour mën a développer wu ñu am les ressources naturelles qu'il faut am le capital humain war a dugg dans le monde de demain war a jóge pays boo xam ne bii c'est un pays boo xam ne dafay endetté pour nekk un hub pétrolier et gazier ñu war a dugg dans ce monde là sain et sauf sans cicatrice sans blessure ñu war a fekk un pays ki est correct ñu mun a avancer pour nous hisser à notre vraie place mooy contexte bi ñu nekk nii ñu am avantage nag am président sortant boo xam ne bokkatul ci élection yi loolu buñ ko yàq.